Omar roi du Mandé salaamaaleykum wa rahmatullah internet yi ñi ngi leen di nuyu di leen magal saa su ak ndam kontante saasune su di leen ko ñaanal ñewati nañ ci Cheikh Ibrahima kayta le roi de Mandeng le roi de Afrique sa tub sangatu Keita bi waxna la ne la mi ngi nekk fi ci sak mbaaw lepp lu la jaaxal ci sa walum yaram da ñëw ci moom boo ñëwee ci moom incha allah lépp luy sa aajo rek dina faju wala nga woo ko ci 77 664 92 92 nee naa la boo ko woowee foofu noonu bu ngeen jokkoo incha allah di nga daagu ñëw ba sax mbaaw ci këram tey nag am na ti nan comme ni ñu koy waxee rek am na foo xëy ne jaare na fi ak eh, sunu papa bi ñu bëgg waxtaan ak moom eh, ci lan moo nekkan jafe-jafeem ak eh, lan moko moko moo dalan tey ba mu ñëw fi ci ibrahim Ibrahima Keita ba euh, ba febar bobu faju euh, papa ñi ngi lay ñi ngi lay nuyu. lay fay. hmm ñu bëgg na xam rek sa yiite lan la won ba nga ñew ci Cheikh ibrahim Keita. waaw man dama doon yëg suma yaram. Mhm. mel ni baat bi la nek hmm di déplacer ci ñew ci wet bi ak gauche. hmm déplacé ci mhm. yaram mhm. mhm. bi mu gën a ñëw ci yow micro bi waaw pour xëccal ma ko voilà voilà mu gën a yéeg waaw continuer waaw. loolu daal moo doon suma tawat. yaram bi dafa amoon mel ni lu nekk ci biir. di déplacé. mel ni day dund. Uh-huh. di déplacé di yéeg di wàcc. waaw loolu daal laa doon yéeg suma yaram. moom nga doon yéeg sa yaram euh, fan nga fan nga fan nga xamante ak moom. kii nag maa ngi ko xamee ci télé bi. Mhm. émission bi mu doon def. Uh-huh. ma jotoon jël numéro téléphone bi nag. Uh-huh. waaw boo ba léegi nag aw ma woon jot pour ñëw. Uh-huh. keroog la ko yàlla dogal rek. ko. ne boo ñëwee rek dama ci kër uh, mais sa sa sa xamanteeg moom ak diiran bi nga bi nga xam ne yéen doon jëflante ci wàllum faj bi ndax mën nañ xam euh, ban temps la jël ci diggante faj bi ak bi ngeen xamante ci wàllum faju bi nga doon faju benn yoon la ma gis. Mm-hmm. mu seetal ma mu ne ma wax ma li nga lu la jot. Mm-hmm. mu wax ko yëpp expliqué comme ni ma la ko expliqué nii. dëgg la. waaw mu ne ma mun naa ko faj. Mm-hmm. nee na. d'après lu mu wax. mu ne affaire seytaan la xaw ma dëmm la. loolu moo ma ko dafa am lu ma lekk. dëgg la moo ma doon def noonu. waaye nee na mën na ko faj. dellu siwaatee nag mm-hmm. jox na ma garab mm-hmm. waaw jël naa garab bi nu ma ko waxee woon mm-hmm. waaye yàlla def nag gis naa ci tane bu baax ci sama yaram maa ngi sant yàlla bu baax mais ci diiraa diiraa diiraa diiraa garab bi ñaata ñaata ñaata fan nga ko jël pour pour wér ci bi mu la joxee garab bi ni ma ko waxee rek butel bu ndaw bi su ma ndekkee ma jël ci ñaari kaasu ataaya su ma añee ma jël ci ñaari kaasu ataaya mhm. ma reeree ma jël ñaari kaasu ataaya mhm. noonu laa ko def mu jeex. waaw boobaak léegi ci diiran bi nga fajoog léegi moom bi mu la garab bi ci ci euh, ñaata fan nga jël garab bi. semaine à dix jours. Mhm. waaw parce njëkk a jeex. sangoo nii nag. ñaari yoon laa koy sangu. suba ak ci ngoon. ci ngoon. waaw mais bii bu mu jeexee nag mhm. laa ko awaat ne ko gis mhm. naa tan suma yaram daal mhm. mais ndax mas ngaa dem ci ci am na sëriñ mas a dem waaw mas ngaa dem ci ay sëriñ waaw mais ñaata ñaata sëriñ nga jot nga jot a jaar <laughs> mënuma ko compter ah, bëri na waaw depuis depuis kañ la la la tëral feebar bi feebar bi nag yàgg naa ak man de ay ah. at waaw ay at la def. ay at mais mënoo xam nombre de at bi mënoo ñu wax ñaata at la feebar bi def. Mhm. mais mhm. Mhm. ma ko waxee nii. na ñu ma xamee ne. dañu ne ma mën nañ dindi bu dee li nga ko dindi. dëgg la dem naa foofu ci ay ko doon sentir ba léegi. mais moom moom daal bi nga jëflanteeg moom même pas euh, une se deux euh, une semaine dix jours sentir nga ne sa yaram lépp lu ci nekkan ci wàllum euh, feebar boobu noonu deñ na. dañ na mm. moom mm-hmm. dañ mm-hmm. na mais sëriñ si nga jot a jaar ñoom ñoom ñoom euh, ba lekkaluñ la lu bari ci wàllum man sëriñ si nga jot a jëflanteel ci wàllum xaalis baa baa lekk ñu lu bari ci yow yenn saa yi tamit dañ may wax daa ngay fay mm-hmm. fay parce que waaw dama doon paas aussi te dara yoon nga doon baagante seen kër yi ñoom ñi nga xam ne jot ngaa jaar ci ñoom non su ma demee dañ may defaral rek ma mm-hmm. wocc mm-hmm. waaye su ma woccoo yi tamit mm-hmm. du tax mu deñ damay sentir yenn saa yi def comme yax waaye yenn saa mu def comme doj waaw di déplacé loolu moom dama ko doon yëg dee heure bi ma ñëwee ci mais bi nga ñëwee ci moom yëgatoo ci loolu dara wàcc na bu baax a baax a baax fu ma dem yëpp waaw jaar naa fu nekk ñu bëri waaw waaye souvent dama ko noonu santiraat waaw sama mhm. bopp mhm. Mhm. ma jot a faju ci moom naa ci tànn bu baax a baax a baax loo xamee ne mosuma ko yëg dëgg dëgg la dëgg la waaw kon daal fi mu toll nii yaram bi moom yi nga ci doon yëg ci côté boobu noonu li doon dox sa yaram yëgatoo ko maa ngi koy bu baax mi tànn Mhm. mais lan ngay wax sëriñ si nga xam ne ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ngi fi di door martu nit ñi nga ñëw ñu ne la man lan laa faj lekk saxaas ñoom lan nga leen di wax yëkkati ma micro bi tuuti papa. Mhm. lu ma ci mën a wax rek mooy. Mhm. nit bu dee mën na dafa feebar. boo ko mënee faj. ne ko mën naa ko faj. boo ko mënul faj. ne mënuma faj mu dem ci keneen. loolu laa xam. parce que kii fajkat la. gis naa lu ma fajal. waaw ci man gis naa ko. bu baax waaw donc benn fajkat. mosuma defal. lim la defal sentir naa ko sama yaram. moom daal nga gis ku la faj ngay sentir ne yow fi mu toll nii sa yaram alhamdulilah. feebar bi def. waaw te feebar def na ay at yow. baax a baax. mais li ci yéen li nga doon santiir muy dox lépp daal sentir too ci dara. non ndax affaire bi daan na la teree nelaw guddi. guddi ma ne ndax daan na la teree nelaw guddi feebar bi. su may tëdd guddi. Mhm. ma wetu gauche bi. Mhm. du ma ko tëddee moom. Mhm. waaw wetu waaw. droite bi. droite bi léegi fi mu toll nii boo tëddee yaa ngi tëddee côté côté côté boobu. non dama ko tàmm nag. Ah, waaw tëddee côté rek. waaye xam nga waaw waaw waaw. boo defee nii. Mhm. Mhm. daal quoi. Mhm. mais daal fi mu toll nii boo tëddee moom yaa ngi nelaw normal. kon lan ngay lan ngay wax sa Ibrahima Keita le roi de Mandeng lan nga koy wax boo amee loo koy dénk. gërëm ko. sant ko. te coloré bi ma amoon ci moom. gis naa ko. waaw cheikh bi ñi ngi lay ñi ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyu mbokk internet yi ñi nga xam ne ñoom ñi ngi lay suivre ak ñi nga xam ne yaa ngi jëflanteeg ñoom ci wàllum faj ñu bàyyi la nga nuyu leen ñu daal di dugg tur ci waxtaan wi alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin saydina wa maulana muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Modou gannaaw ba ñu sante yàlla ñu ngi julli ci yeneen tàmba di gërëm suñu maam Sunjata Kayta mhm. di amati mbégte mhm. ndax yaakaar naa ni mhm. lii mbégte la. dëgg la waaw. Mhm. nit feebar feebar boo xamante ne ni pendant des années. plus de mhm. vingt ans. Mhm. moom sax mënu la wax feebar bi ñaata at la moom. ndax yàgg na. boo ko xoolee xam nga ni. mag la du xale. dëgg la waaw feebar bi da koo sonaloon. benn côté rek la doon tëddee. feebar bi jàpp ko jàpp boo xamante ne ni maanaam. dafa am lu doon dox ci yaram bi. loo xamante ne ni. da doon dund. ma ne la ba ma ko seetalee. nitu guddi laa gis moo ko topp. dëgg la. li ko topp ci nitu guddi ëpp na ñaar fukki nitu guddi ak lu teg allahu akbar dañ ko jox mhm. lekk nitu guddi mu lekk ko mhm. loolu mu lekk nag moo doon dox ci yaramam mhm. di dugg fu ne di bënn fu ne gis nga nitu guddi boo lekkee lekkam tooke yi muy def sa yaram <laughs> euh, moo tax da ngay jékki-jékki rek gis nit dox jékki-jékki rek daanu dee dëgg la li muy yàq ci biir yaram bi mhm, mooy bëri mooy bëri mhm. sa jëmm ji nii nit mën na la xool nga toog mhm. gis ni kii amul benn problème mais fekk intérieur am yàqu na mais alhamdulilahi rabbil alamin mu nekk nit koo xamante ne yàlla da koo nar a jàppale dëgg la parce que yàlla mënoon na ko womat yóbbu ko feneen comme fa mu daan dem nee na dem na ci sëriñ yu fu ne mënta am fu ne te mënta am wér yàlla bi ko indi fii ci yabal fii ci man nga xamante lii suñu spécialité la. ñun mhm. ay sëtu Soundiata Keita lañ. dëgg la xam-xam bi dañ ko doon namp ko. Mhm. yeewu ci suñu kër ndey ak mhm. suñu kër baay. fekk ñu doon ay fajkat. ñuy faj yaakaar naa résultat. dëgg la mënta weesu lii. kii xam nga ni du wax loo xamante ni amul. dëgg la mag la borom karaw gu weex la. dëgg la du fi nekk di wax loo xamante ne amul. résultat yii. moom la ñu mënee gars yi. Mhm, loolu de am na moom. waaw résultat yi man mhm. moom may bégloo man a Ibrahima Keita. Mhm, gisoo tey itam mu ñëw mu ne ma Cheikh Ibrahima Keita vraiment maa ngi sant yàlla. sant naa yàlla bu baax li ma jox. vraiment benn yoon laa ko jox garab. ma ne ko nag. dinaa la won ni. doo ma gën a gore. dëgg la danaa la renforcer waatal. n'est-ce pas loolu laa la wax léegi. danaa la renforcer waatal. incha allahu taala. peng ngay def. dëgg la ndax man lii laa bëgg. ndax bu jaree ma toog ñetti fan du ma nelaw dama mhm. koy def dëgg la gis nañ loolu xool samay bët yi mhm. xam nga ni bët yi mhm. du bëti nelawkat du bëtu nelawkat gaa yi lekk xaalis ba pare tëdd di tëdd di nelaw di lekk di njoñ seen i ginaar nañu bàyyi yooyu man bu jaree ma toog ñetti fan te du ma nelaw da koy jar dëgg la damay toog lu ëpp ñetti fan toogal ko benn nit di ko faj pour mu wér dëgg la moo tax nag li nga def nii gis tan ñëw toog wax vraiment je suis fier nit ku baax nii lay def dëgg la li nga def nii man dama cee kontaan Mhm. ndax wax mhm. dëgg yàlla da ngaa mhm. wax rek li am da nga wax sa diggante ak yàlla dëgg la boo gisul woon dara man munu ma la forcer pour nga wax dëgg la Modou mii munu la forcer pour nga wax dëgg la da ngaa gis loo xamante ne ni gisoo ko fenn kon alhamdulilahi rabbil alamin uh-huh. waaw médecin traditionnel yi nañuy def ni man faj uh-huh. yàlla yi ñuy wér uh-huh. moo gën toog di di dóor martu ñi bu ñu ñëwee te doo faj kenn waaw alhamdulilahi rabbil alamin waaw comme ni mu ko waxee rek man li may wax saa rek naa leen témoignage fii ci kër gi loolu loolu loolu loolu loolu loolu du gan ñu gis ne seex bi wàllum dëmm ak ak yi moom man dama gis ne ku ci ñëw ku fi ñëw du du mat une semaine mu mu mu mu daal di wér ma je suis le meilleur dans ça. Uh-huh. ñun dañoo doon ay jinne yoo xamante ne ni du uh-huh. làmbaatu. Uh-huh. du jinnay xamb wala ndëpp déedéet. mbindeefu yàlla la. boo xamante nii. suñu maam da ko tënkoon yilif ko. depuis mhm. ca mille deux cent. maam Sunjata mhm. muy muy walangaan ba ci mhm. ñun sët yi. moo tax man Cheikh kay Keita lépp lu ma ne ne lii mën naa ko faj. bu soobee yàlla boo laalee suma garab da ngay gis résultat total. incha allahu taala. ñu gis ne moom bi mu fi ñëw euh, sonnan na te fi mu toll nii. tubaar alhamdulilah. torop torop torop sant yàlla bu baax. te lépp lu ma ko defaloon benn. damay def duubulam. waaw dëgg la lépp lu ma def benn mhm. danaa ko def fukkam mhm. ndax wax dëgg yàlla déggoo ma ne la mhm. témoignage yi ma gënal nga jox ma milliard dëgg la waaw ndax lii lañ may bàkkee lii la di faj nit ñi ci peu de temps ban sëriñ jox la garab benn yoon nga gis résultat amut ah amul non non waxal rek gars yi gars yi non moom ba sonn ñaat sëriñ yi mu dem sax moom xamul nombre de sëriñ yi nga xam ne dem na fa waaw loolu nag xam-xam la loolu xam-xam la nit doon nu xam-xam judd ci xam xam-xam mhm. yaroo ci xam-xam mhm. xam luy faj mhm. xam luy garab xam luy nitu guddi waaw alhamdulilahi rabbil alamin te gis na ni nitu guddi ji jamono ji dañu solo nit ñi comme li nga wax euh, buñ la gisee nit sa jëmm dañuy jàpp ne macha allah fekk na intérieur am na luy luy dox sa yaram xam nga joxe naa ñett signes yoo xamante ni nitu guddi moom lañ bëgg dëgg la xale bu xarafalu jigéen bu wérul ak mag bu ne mag mooy mag koo xamante ne jëm na mag nitu guddi ñett yooyu lay wër dëgg la c'est mhm. très dangereux. Mhm. moo tax nañuy gën a fonk suñuy mag yi. Mhm. bu ñu jàmbatee feebar nañ leen taxaw. Sénégal dañoo tàmm mag bu jàmbatee ñu ne ah feebaru mag la rek. waaw feebaru mag la dëgg la. waaw c'est pas ça. yaa may comprendre maa lay dégg. mag yi. ndax olof Ndiaye nee na mag. mag jar naa loolu wér na en tout cas kooku mooy Cheikh Ibrahima Keita nee naa leen loolu moom euh, du fi gan ah, ñëw ci kër gi ñu faj la ñaari fan ñett ah, wala benn fan loolu moom defe naa defe naa defe naa moom mooy mooy mbaaxantalu kër gi ah, Cheikh bi kon ñu bàyyi la rek nga daal di tëj comme fi mu toll nii waxtu wi jeex na. waaw sant bu baax a baax di lancé médecin euh, médecin traditionnel yi nañuy roy ci Cheikh Ibrahima Keita uh, le roi de Mandeng ndax euh, patients yi lii te nag ñi feebar nañu xam ni ñi ñu ngi ci réew mi. Mhm. Cheikh Ibrahima Keita yemut ak. gaa yi mhm. ngi noonu Cheikh Ibrahima Keita les rois de Mandeng les rois de Afrique ah ngi noonu ah da nga koy woo ci 77 664 92 92. wala nga ñëw fii ci Zac Mbao arrêt Baye Diouf boo laajtee këram incha allah dinañ la dinañ la fa dinañ la woon këram boo ñëwee lépp loo xëy mooy sa ité rek incha allah boo ñëwee yàlla dina la ci jàppale sama gaa yi naa leen topp leen suñuy vidéo rek di xam moom li ko yàlla may te defe naa yéen yéen a ngi gis loolu moo tax ngeen di déplacé wu di ñëw ci këram ah, jàmm ak jàmm jaajëf. Ah, Cheikh Oumar roi du Mandé